aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñu ngi dellusiwaat ci sunu jotaay mi ñuy faral di amal te diko genné ci majmua tay nak sëriñ bi mu ñuy denk denkan lu am solo muy wax ne maanaam yeen ñi nga xamanteni da ngeen di jëf lu baax da ngeen di moytu ko day seen jëf yu baax yoy ngeen di ko jël diko jox maanaam yeneen jaam ñi nga xamante ni dañuy jëf lu baax comme ni yéen waaye tamit na ngeen di moytandiku di yenu ay ñaawteef yoo xamante ni jëfkati ñaawteef yi ñoom seen jëm bopp ñoom ñoo koy def ngeen leen di ngeen di leen ko yenul na ngeen di ko moytandiku mën nag ni nga xamante ni noonu ngay jëlee sa lu baax di ko joxaat koo xamante ni day jëf lu baax maanaam ku baax yow nga jël say jëf yu baax dem joxaat ko koo xamante ni ku baax la nee na loolu dey ni nga xam ne noonu lay amee mooy su fekkee ne dangay ngay sikkal da nit koo xamante ni nit ku baax la di wax ci moom naka su noonu su boobaa suñ borom day jël sa lu baax loolu daal leen koy jox ñoom ñoo ñu nga xamante ni ay nit ñu baax lañ kon. boo de boo toogee di wax ci nit ku baax di wax ci moom naka sudul noonu wala ngay wax ci moom ay ñaawtiif na nga xam ne suñu borom mu ngi jël ci say lu baax di leen ko jox ñoom di leen ko yokkal ci seen lu baax loolu ñuy def waaye nag na nga xam ne tamit saa boo tooñee koo xamante ni jëfkatum ñaawtiif la nga tooñ ko su boobaa suñu borom dana jël seen ñaawtiif yooyu daal la koy ràngaat te dara gëntu metti jëf sa lu baax ba pare wëlbati ko waat joxaat ko keneen jox ko kàccoor boo xamante ni jaamut yàlla jëfiwut ay ndigalam wëttandikut ay teram nga toog rek nekk ci ab di wax ci moom suñu borom di jëlaat sa lu baax wala mu jël seen ñaawtif yooyu maanaam rang la ko yow fi mu nga téyal leen ko xam nga ne kon loolu maanaam dara jëru ko ndax nit ki moom nu mel maanaam da ngay noppi ci ay mbiram maandu ci ay mbiram ndax yàlla dafa aaye kuy tooñ waaye tamit nee na bul tooñ waaye nag maanaam bul tooñ kenn la maanaam bul tooñ waaye tam bu la kenn tooñ waaw laa taslimu na waaye nag wala tuzlamu nit ki maanaam bu tooñ waaye tamit bu ko kenn tooñ waaw ndax yàlla loolu daf koy aaye mu wax ne tamit maanaam xol moom sa bo xamanteni da xol dafa dafa yéeme ak nako suñu borom bindé mo ne sa bo xamanteni ni na ci bir malakutu samawati wal ardi ci setantal suñu borom subhanahu wa taala ak diko tewlo suñu borom da duy ci bir xelam ak xolam ak ruham ay leram ba buy dellu suwat dana dellu suwat indale ay ghaib muy loo xamante ni yàlla rek ko xamal waaye mënu ko xam ci ay téere wala ci ay jàng waaye nag teewlu ga muy yàlla ak di ko seetantal maanaam jël xelam ak xolam yëpp daa koy joyal ci biir malakut teewlu suñu borom subhaanahu wa taala ak màggam gi ak kawem gi tax suñu borom def ci biir xelam ak xolam ak ruuxam ay leeram ba muy dellu siwaat fii bu boobaa dana indaale ay xëy mu ne nag su fekkee ne tamit defoo loolu waaye nag da jël sa xor rek wékk ko ci àdduna ci loo xam ci lu xaraam la wala loo xam luñ ñu cible nee na xol bi kat buy dellu si du indaale lu dul rek ay aybu yoo xamante ni mooy nekk ci biir xolam <coughs> tamit nit ñi moom dañoo dañoo séddalikoo ci ay xaaj nit ñëpp ci ñett yii ci lañuy ñu séddale ko dafa am koo xamante ni day koo xamante ni ku yeewu la am koo xamante ni dafa dof am koo xam dafa yembadi mu ne ki nga xamante ni nag moom dafay ku yeewu nee na kooku day day jël buñ ko joxee wurus may ko ko jox ko ko nee na wurus woowu daf koy jaay jëndee ko lu gën a foor wurus woowu te loola mooy day bàyyi lepp lo xamanteni depp wut ak ngeerum suñu borom subhanahu wa taala daal di jàpp ci depp ngeerum te moy loola moy wax ci aw làmmiñam lu yiw wala muy tuddi yalla ci aw làmmiñam wala mu nopp ndax manam lu lu lu for la lu am solo la làmmiñ lu am solo manam yalla yàlla wa jox la nga mëna wax ni lu am solo waye nak nag nee na day jël nag di ci tuddi yalla suñu borom subhanahu wa taala di ci wax lu bax su demee ba nga xamanteni ñaar yi def ko muy waxul lu bax wala tuddul yalla ci aw ñu neena boba day dal di nopp waaw moo bi sallallahu alayhi wasallam do wax ne man kana yumin billahi wal yawmil akhir fal yaqul xayran aw li ku gëm yalla ak yarantem gëm bis penc nay wax ci ñu aw yu su bu ko mu noppi mu nag ki ci topp moom mooy majnuun mooy ab dof nee na dof bi kat buñ ko joxoon wurus moom xam nga ne ab dof moom xamul luy wurus buñ ko joxoon it njariñ la maanaam du ko gis su boobaa nag na muy def mooy day jël wurus ba daal di koy jaay jëndee ko ay xal wala mu jëndee ko loo xamante ne ay jaan la wala ay jiit te loolu mooy day bàyyi wax ju baax bàyyi tudd yàlla daldi di nag Manam choisir ci tuddu ak wax lu bon ak ay jëw ak rambaaj neena su baba lol lay tan ci def ko baye fi tuddu yalla baye fi wax ju baax baye fi lepp lu baax dal rek manam di tuddu rek ay bi nit ñi ak di leen jëw ak di wax ñom lu bon neena am daf mom moom lay def te lolo moy ki def non ba liggey suñu borom daf koy fayé sawaram sawara sa nak jaanang ko nga fa lepp nga fa lepp lo xam xalaat nga rek ne manam ci saw ci ci ci aw metti aw tis wala mom ma nga ci bir sawara mu ne kon dox bi nga xamanteni mom mom dañ ko jox wurus mu daal di bàyyi wurus ba fële dem jaay ko nag jënd ko loo xamante ni mooy ay jaan ak ay jiit muy bàyyi wax ju baax wax ju baax ji ko suñu borom digal ne ko dee ko def mu bàyyi ko tuddul yàlla te yàlla digal ko ko mu bàyyi lu lépp daal di nag di wax ay ñaawteef ak ay mbom ay ay ay ay ak di jëw ak di ràmbaaj nee loolu rek lay def nee na ab dof moom foog fekk loolu lay def nee na ki nga xamante ni moo ci topp nag mooy ki nga xam dafa yembadi ku yembadi nag moom mooy dufut maanaam maanaam dufut maanaam yéewut dafa nekk ci diggante bi rek dufut yéewut ok nee na kooku moom moom day jël wurus daal di koy jëndee li nga xam mooy ab dóom wala mu jëndee ko suuf wala mu jëndee ko ay yëri yoo xamante ni maanaam yëri yu ràpp la walla ay wala mu jëndee ko ab ñax mais loolu moom mooy duñ ko joxee wurus maanaam du ko mën a xam du a xam am njëriñam ndax ku yebbani moom bañ nañ ko ba sax ci maanaam sariya kooku sax maanaam alalam maam dañ koy dañ koy jox koo xam moom moo koy saytul maanaam ku yembadi moom moom daal mu ngi noonu su boobaa daal day bàyyi rek loolu moom mooy day bàyyi wax ju baax di wax lan ay caaxaan ak loo xamante ni amul benn njariñ day bàyyi wax ju baax maanaam nag di wax rek loo xamante ni ay caaxaan la ak loo xamante amul benn benn njariñ nee ko ku yàmbari moom noonu lay def suñ bi jàll ci ndénkaan li mu ne képp koo xamante ni jublu na suñu borom subhaanahu wa taala lépp loo xamante ni aw yiw la day dana ko jublu waaye nag képp koo xamante ni dëgmal na suñ maanaam wan na ginnaaw suñu borom subhaanahu wa taala nee na lépp luy aw lor na ko na ko wóor ne dana ko jublu waaw képp ku ju ku dëgmal yàlla rek lépp li aw yiw ak lu baax da lay dëgmal waaye nag boo wanee ginnaaw suñu borom lépp li ab safaan daf lay dëgmal nga ne ko kon nag léegi man naka laay dëgmalee yàlla mu ne la ni ngay dëgmalee yàlla nag loola moom mooy nga sàkk wasiila koo xamante ni day dox sa diggante ak sa borom subhaanahu wa taala di la digal lu baax ak di la ko di la ci di la ci di wax li nga xamante ni moo mat a def ak li nga xamante ni mët def di la dig digal nga nee na bu boobaa lam lay digal nang ci jàpp lam lay tere nga wattandik ko ndax jàpp gi ngay jàpp ci ay ndigalam ak wattandiku gi ngay wattandiku ay terem loolee moo lay jegeel sa borom moo lay yóbbu ci suñu borom subhanahu wa taala te loolee moo lay moo lay musal ci lépp loo xamante ni ay gàllankoor la <laughs> mooy gàllankoor yoo xam day dox sa diggante ak sa borom ba doo mën a ci moom mu ne nag xam-xam kon dafay ñaari xaaj xam-xam ñaari xaaj la xam-xam bi lay jëriñ ak xam-xam bi nga xam amul benn njëriñ mun laa jëriñ xam-xam bi nga xam dafa lay jëriñ ci sa àdduna ak sa àllaaxira xam-xam bi nga xam ne mun laa jëriñ ci àdduna waaye tamit mun laa jëriñ ci àllaaxira loolu sëñ bi sëriñ Touba indi na ci ay leeral yu bari sax boo demee ci biir maanaam Masaalikul Jinaan ci xam-xam bu am njëriñ ak xam-xam bi nga xam amul njëriñ waaye ci tënk mu wax ne xam bi nga xamante ni daf lay jëriñ ci sa àdduna nee na ak sa àllaaxira mooy xam-xam bi nga xam dafa lay xamal lu yiiw ba nga xam ne ko mën a def daf lay xamal lépp lu baax ba ba nga xamante ni dangay mën a jëf lu baax loolu waaye tamit xamal la li nga xamante ni mooy aw. ab safaan ba nga mën a safaan boobee ngir jëmm suñu borom subhaanahu wa ndax kat bu nit ki génn àdduna nee na du ànd ak lenn ludul ñaar yi waaw ñaar yi mu wax moom maanaam su nit ki di génn àdduna du ànd ak lenn ludul ñaar yi mu wax xam-xam bi nga xamante ne da nga koo jëfee mooy xam-xam bu baax xam-xam bi nga xam xam-xam bu am njëriñ lam la xamal ba nga xamni dang ko jëf ci aw yiw neena yiw wowe mom mo lay mat bu duggal la aljana waye na xam-xam bi nga xamante ni maanaam xam-xam bu la lam la xamal ci ab safan ba nga mëna watandi ko lool bayiko neena watandi ko nga watandi ko safan bobé mo lay musal ba nga ci ba nga mëna muccu ci bi manam ci ci ci ci sawara waye nak du bokkut ak ñaari xam-xam yi mu wax nee lu bokut ak ñaar yi ma wax ci xam-xam day neena su boba bu nit ki de genn aduna xam-xam ba baye ko ci delu wat ci tiir yam ko won woon yoy delu wat ci alquran alquran wat ci lawxil mahfuz da alquran moy ti ti re xam-xam yi téere yi tiir yi ta alquran mu ngi ko ci manam lawxil mahfuz motax suñu borom xam-xam motax suñu borom subhanahu wa ta'ala don wax yantu sallallahu alayhi wasallam diko wax ne ko wa khur rabbi zidni ilma ñaanal sa borom subhanahu wa ta'ala mu dolli la xam xam ndax am gi xam xam am jariñ moy xam xam am jariñ am gi am solo motax suñu borom don ko xalol lolu ba yonent sallallahu alayhi wasallam daan wax bu amé benn bis bo xamanteni nuru ma ci dolli xam xam day yalla mo fekk bis boobu lol nak bam koy wax lol lepp rek moy xam-xam bi nga xamanteni dafa am jariñ ta dila jariñ <clears throat> mooy nag xam-xam benn nga jàng maanaam ñi nga xam dañoo jàng xam-xam ba am xam-xam ñu leen di tuddee ay boroom xam-xam seen xam-xam boobu ñu jàng ñu ngi ko jëlee ci maanaam borom xam-xam yi ñi nga xamante ni ñooy ñooy borom xam-xam yu mag yee mag di ulama sharia nañ ñëw ñi nga xam dañoo jàng ba am luñ xam nii nga xam dañoo jàng rek ba am luñ xam xam boobu ñu jàng ba xam ko ñu ngi ko jëlee ci ay xam-xam lañ ko jëlee waaye nag boroom xam-xam fan lañ jëlee seen xam-xam ñu ko jëlee ci anbiya yi ndax anbiya ñoom ñëw jàngal ñu xam boobu nee na xoon borom xam yi seen xam-xam ko jëlee ci anbiya ci ulumu anbiya yi anbiya yi nag fan lañ jëlee seen xam-xam yi mooy malaayika yi ñoom ci lañ ko jëlee ndax malaayika yi ñoom ñooy wàcc di leen ko xamal la sayyidina jibril anbiyaa yi moom moo leen di indil maanaam risaala bi di leen indil xam-xam yi moom moo leen koy jox kon anbiyaa yi seen xam-xam ko jëlee ci malaayika yi waaye malaayika yi ñoom seen xam-xam ñu ko jëlee ci lawhil mahfuus ñu ngi ko jëlee ci lawhil mahfuus lawhil mahfuus nag ana xam-xamam moom fan la bàyyi bàyyeekoo ma nga bàyyeekoo ci. maanaam xam-xamu suñ borom subhanahu wa taala te xam-xamu suñ borom subhanahu wa taala boobu amul fum mu commencé amul fu mu yem amul fu mu commencé amul kenn mënu caa peeg dara dara dara lu dul naka soom moo tax mu ne wala na bi shay'in min ilmihi illa bi ma shaa amul kenn koo xamante ni mën naa peeg ci xam-xamu suñu borom subhanahu wa taala lu dul rek la ko soob motax tax mu ne wallaahu bi kulli shay'in alim yàlla moy ki nga xam mo xam lépp xam ko nam deme te mbir mu ne noko wolbeuti wolbeuti ak noko meuna def ak nu meuna doy rek suñ borom xamé ne kon nga xam ne noonu la demee wallaahu yaalam wa antum la taalamun yàlla xam mo xam te yéen xamul yàlla xam na waye nak ñun doom aadama mom xamul xamuñ te yàlla sax ya'lamu ma bayna aydihuma khalfuhum li ñu diggante ak suñu ginnaaw suñu lépp lépp yàlla daf xam moo xam suñu démb xam suñu tey xam suñu ëllëg te ñun luy teew rek lañu xam li xam ne weesu naa lañ ca xam sax tuuti la la suñu dëgmal te xamuñ ci dara la ñu dëgmal tamit xamuñ ci dara <laughs> kon yàlla rek moom mooy yàlla te kenn du yàlla ku dul moom te sax far dara amut sax lu dul yàlla rek dara sax amut fa lu dul yàlla loolu na aw dégg na laaj ndax. amaana nit koo xam ne maanaam mën naa sukkandiku wax ne ah dara amul kon lu du yàlla bëgg jàppee mbir yëpp mu yàlla déedéet mooy lenn rek am mu yàlla yàlla am na waaye tamit lim amal it dafa am yàlla am na waaye tamit lim amal it dafa am waaye nag loolu lépp rek kàttanu yàlla ak suñ kàttanu suñu borom subhaanahu ak i jëfam mooy feeñ ca loolee. bu ñu leen dara amul du yàlla loolu mooy li ngay jàkkaarloo lii lépp nii ak lu mu mën a doon rek loolu yàllaa ko bind. kàttanam ak dooleem ak sañ-sañam mooy feeñ ci loolee waaye tikku na dina laa bëgg wax ne lii nii yàlla la déedéet loolu loolu am na ñoo xam ne dañoo am ay pas-pas yoo xamante ne loolu la muy pas-pas yàlla yàlla yi waaye yàlla am na waaye li amal am na waaye nag taxul lim amal di moom taxul lim amal di moom yàlla moom kenn la waaye tamit amul lenn loo xamante ni day day day mën a jaxasoog moom ci jëmmam baa muy doon benn ak moom nii jaxasoog moom doon doon benn déedéet yàlla lim amal loola kàttanam ak coobareem la nga mën caa gis maanaam kàttanam coobareem xam-xamam loolu lépp waaye nag jubluñu laa wax ne loola yàlla déedéet moo tax mu ne xamal ne yàlla rek moom mooy yàlla te kenn du yàlla ku dul moom te moo gën a màgg lépp te moo gën a tedd lépp kon ndénkaane boobu foofu lañu koy yemale maanaam ba beneen yoon ci sunu waxtu ci heure bii insha allahu taala wa aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu